ngeen jot suñu vidéo nag foo a jot moo leen mën a xam li nga xam ne jaale ñi nga xam ne euh, seen doom wala seen mbokk euh, faatu na ci mbir mi lañ ci mën ñu ngi koy def ak ay bonne volonté yi ci jàpp di dellu di gërëmaat mun euh, Mountakha Mbacké xalif général de murit ndax li mu def dafa rafet gannaaw bi mu jëlee responsabilité ne lii war nañ cee dugal suñu loxo def ko ci anam goo xam ne wanul par par wanewul par parloo wanewul péete waaye dafa ne dëgg rek moo ma ñor waaye yemul ci loolu dafa yëkkati lu lu am solo ci alal ne lii maa ko teg ci euh, mbir mi pour ñu jàppale ñi nga xam ne gaañu nañ ci walla ñi nga xam ne seen bakkan rot na ci ñu jox leen ndàmpaay démb bi ñu ma woowee wax ma ko ñi mu yónni dama leen ne ñun duñ ci laal duñu nangu benn politique laal ci waaye liste détaillée bi nga xam ne ñi gaañu ak ñi faatu ak ku gaañu la ak adresse am ak fu mu ak kontagam yëpp dinañ leen ko jox bu ko defee seen délégation dem fa lañ fa war a joxe ñu joxe ko ci turu sëriñ bi ñëpp xam ne lii sëriñ bi moo ko andi pour jàppale askan wi kon loolu rafet la ci Sénégal moo tax ñu nit mënuñoo di bañal suñuy kilifa yooyu mënuñu leen ko bañal parce que dañu taxaw taxawaay boo xam ne dafa mat taxawaay ci kilifa ci réew mu mel ni Sénégal kon ñu ngi leen di gërëm moom ak yeneen xalif généraux yëpp ak église bi parce que ñëpp intervenir nañu ñëpp def nañ li ñu waroon def dafa fekk suñu doye di ñun en tant que acteur politique ñoo taxawul taxawaay bu mat rawatina ñi mënoon a yemale mbir mi fu mu war a yem waaye jàpp ni am nañu occasion pour xàll yoon pour mandat à vie loolu tiital leen ba ñu bañ a yem ba tey askan wee leen yemale moo tax loo ci gis koo xam ne da nga doon jaay doole te tey yow eh, ay char de combat ñoo la wër muy sa kër muy palais ñemetoo génn doxantu moo tax doole yàlla rekk ko yor ku beew ba jàpp ni yow yor nga doole bu kenn yorul ndax nga sa bopp.